mille 2022 en réalité même ñi jàll sax mënuñu laa wax. su la base parce que fichier bi dafa ah am coup de chance la finalement jàll moom coup chance la léegi nag hmm. am na loo xam ne da koy wax mënta nekk. je veux aussi man dangaa nekk candidat à l' élection présidentielle recalé wuñ la ci parrainage jàll nga parrainage ngay jublu ci liggéey bi defar sa programme jublu ci élection waaye doo départ ba fa loolu yëpp dem taxaw di ñaxtu. naan damay nekk ci collectif. deuxième tour bi deux jours nga. ah oui non loolu damaa réaliste rek. ah bokkoon nga ci collectif bi. jàll nga léegi yow bokkatoo waxuma bokkoo musoo bokk ci benn collectif. voilà candidat bu nekk ba muy. non ku musul bokk am na droit moom la candidat bu nekk ba muy tàgguwu la. danoo recalé ñii ñii jàll. ñi ñu recalé ñu ni danoo def collectif. yow nga jàll ba pare départ naan na ngay bokk ci collectif. non premier tour premier tour non kenn ku déposé koo xam ne ba ngay déposé tàggu nga sa morom. waaw ci ci sa gëm-gëmu bopp. ci nga demee doon nekk candidat. waaw léegi bi ñu leen calé. ñi ñu calé. waaw premier tour ñi ñu calé non c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne dañu jàll deuxième tour. waaw mais ñooñu nekkuñu nekkuñu fa def collectif même ñiy bokk ci collectif bi donte wax na ni waaye li ñëpp def lan def mooy dem régulariser waat. bien sûr oui mais am na ñu jàll te ñu ngi ci collectif ay ñoom Aliou Ndiaye waaw waaw waaw léegi. dama ni. yaa ngi ci collectif bi loolu bëggoon ñooñu bañ a bañ a bañ a bañ a dem. non euh, dama ni non dama ni dama ni si dama jàll nga deuxième tour mais yaa ngi doon xeex ci benn collectif. non man terewul jàll nga mais est-ce que tamit dafa war a tax rek nga tàggoo waa collectif. ni leen bàyyi bàyyi non non ñun ñii par exemple tey jàll nañu ñun ñu toog ci plateau bi. jàll nañu parrainage. nekkul ñu ci collectif bi waaw nekkuñu ci collectif mais débat tey bi ñuy débat nii non mais attends débat bi ñuy débat nii mais ñi ngi wax problème yi nekk ci parrainage donc ça veut pas dire que ma mënoon naa yooyu la ñu war a fexe léegi bu lii weesoo ñu toog waxtaan ci xool lan mooy meilleure solution pour que lu ñu koy defaree mais newuma rek ñun jàll nañu donc man sama yoon nekkul ci non non non seen nga wayu sax wayu sax dafay doxee tàbbi xam na ne conseil constitutionnel amul possibilité revenir sur la décision de la commission bi yor wàllu parrainage. non c'est trop tard. maanaam collectif bi li ñu li ñu man mooy dénoncer. Mhm. ñun moom la ñuy def. ci loolu moom la ñuy def tey moom la ñu mus a def. maintenant day évoluer su ndee ba am candidat yi. collectif yu jaaroon yëpp yu ci bari situation politique mooy tax ko ko dañuy dépérir ci beneen level ngay nekk mm-hmm. mooy ñi nga gis ci collectif bi dananu kaas am na nu leen metti ca dama koy ca dëkk maanaam aw say taxaw kaas ko dafa gën kenn ku nekk taxaw di yuuxu loolu moo tax ñu constitué en collectif mais bu demee tuuti ba ci kanam ba affaire gën a évoluer dina amaat sax peut-être beneen euh, euh, collectif bu judduwaat mm-hmm. mooy ñi nga xam ni jàll nañ parrainage waaye ñu recalé leen ci leneen lu dul parrainage mën naa juraat beneen collectif nous sommes dans un pays de droit mhm. daf la may boo amee lu la naqari nga nga ñaxtu ko mais mun ne ak réalisme politique ba nit ñii ñooy cinq candidats yi ñiy bokk ci collectif yi ak collectif yii di waaj a ñëw dañuy dem rallier wu ci candidats yi mooy li nga wax sànq bu nekk xool ñi nga mën a àndal nga ànd ak ñoom mais c'est-à-dire que li mënta nekk mooy man jàlluma parrainage loi bi baaxul loolu ni wax na si plus information waaye nag ñun élection du am processus bi dañ koy yàq parce que man bokkuma loolu mooy indi yow si système bi mooy man su ma bokkut kenn du bokk. non loolu moom kenn sañ-sañ bi. loolu la man. parce que nguur nguur moo tax man la xam nga ni ñuy defee collectif yi aussi il faut aussi ñu ciy bàyyi xel munoo yeewu rek ñun la collectif judd na collectif bi buy judd da ngay xam fu mu doore ak fu mu jëm nga xam et puis bi da ngay gis ñoo xamante nii parrainage bi ñoo ko fi indi. waaw ils étaient au cœur du système. ba <laughs> jiite collectif. xam nga yooyu moom doo ci dégg président Idriss Seck. Mm. dafa nag am na am na foo xam ne boo fa tolloo nag. la carrure d'homme d'État s'impose. mais c'est homme d'état ak a yomb ci li mu wax nii c'est un point que boo xoolee aussi collectif bi bon boo xoolee ci biir. am ah, ñu sëñ bi yow yaa indi parrainage ñi indi lii. ñoom ñoo fa. donc loolu am na c'est-à-dire que li ma gis rek loo gis si àdduna dañ koy améliorer. Mhm. donc dangay commencer point bi. nga gis ay manquements et nga koy améliorer di ko. et ils di très satisfaits ils étaient très satisfaits ou di fait que nous avons éliminé des candidats comme Bougane comme xalifa ci parrainage bi man am naa seeni vidéo ñu wax ca wax joo xamante ni sax ñii fi ne tey waxuñu ko ci ñii nekk ci collectif daa mën a nekk xam ba xam dégg nga ma yéen victime ngeen woon ci ci élection présidentielle 2019 fàtte xaju fi ña yoroon machine électorale u Benno Bokk Yaakaar Fall temps bi jeex na de. soxna si ca la bokk ah finalement wutal nga ko musóor. Ah, parce que nee woon nga satisfait ou satisfait tey nga ni soxna si. ah kon wax ji leer non kon wax ji leer non dama ne presse bi yëpp moom la ñu je ne stigmatise pas.